kontaan naa yàlla. bari na. <laughs> kontaan naa torop. ci loolu bi tamit moom ko ci teg nee xaalisu njaw bi yàlla ah. kontaan naa yàlla na ko yàlla fay ndax astu lii mu ma defal. du ma ni guleet nag. yàgg na koo defante ak man. Mm-hmm. te dama la bëgg a xamal ni la. Mm-hmm. astu sax jàppewuma ko lii. ndax teraanga boo ko jàppee nit bu jeexee nga ba ko yaroom mhm. ak dignitéem mhm. ak baaxaayam mhm. moo tax ma bëgg ko def ko ci sama xol nag muy dëgg ci man waaye neel astu kontaan naa yàlla na ko yàlla fay ndax nit ku baax la am naa ci nag naqar li ma ci naqari mooy li astu dem di saye keneen ndax su ma sañoon. sama doom moo koy takk. doguma la sax gis nga tata loolu la ci naqari noon noonu ñun ñii loolu lañ ci toll. parce que vraiment bu ñu sañoon Pape Cheikh ak di sëy man mii jëm naa dem maintes fois kër Pape pour jéem ko gis pour waxtaan ak moom ak Astou mais yàlla mujjul nangu dogal ñu di gisee ma moom. mais nag jaam pexeem yàlla ak dogalam nii la nii la ko yàlla bëggee ah ñun gënaluñu mais nag noonu la ko yàlla bëggee. mais man xam naa damay ñëw dem. dama ñëw dem bàyyi ma ñëw dem bàyyi ma ñëw dem xam nga rek tabaski beeg yooyu faa nga lijjanti waaw. dañ ko dégg incha allah nga nuyu ma Pape Cheikh bu bëri. waaw ah, kay jërëjëf di tabaski jàmm ak salaam. ah ñu bokk ñun ñëpp. waaw ah, kay jërëjëf jërëjëf Tata. la prochaine. merci dugg nga ne duma dugg yow danga maa xamul boo ma xamoon ni ma may ma jàll waaw ñu woo ma téléphone nga naan ma ay rendez-vous dangay am rendez-vous dangay bind nangam sàngam waaw Pape Cheikh sama doomu bàjjen na am na droit dugg ba sat ci biir faalewu ma la nan te nag boo amee li wax nga génn fi moom parenteer bu ndaw taxawal tuuti rek yow moom sa dàq leer na c'est fini génn fini waaw nga décroché ma eh. nga décroché ma boobu ba tey mi ngi may eh, menacé nag. Eh, waaw continué ah waxal bul ma may riir nag. sa làmmiñ dafa rëy dama bëgg nga téye sa làmmiñ bul ma fi may riir li nga nekkee ak man kër ga doo ko defee man fii may liggéeyee fem gii sécurité bu bees moo fi nekk. am na parparloo yoo xamante ni amu fi. qu'est-ce que je fii laa ñëw taxaw nga woo ma ma ñëw taxaw fii euh, kee ne ca parenté ba euh, Pape Cheikh laay dama am rendez-vous mu ne ma ana sa tur nekkul ci liste bi Pape Cheikh autorité la man autorité la ndax sama doomu bàjjan la mu indi xaw ma papi xaw ma papi mbaw naan ko léegi léegi léegi léegi dama bëgg léegi dama bëgg nga nopp li ma la waxee nga ñëw lu ma la wax boo ñëwee xaar ma ci bunt bi dama tàng duma dugg ci biir saafonte yi bëgg gis maire ñoom déggan si ngeen rek artistes ne ci biir dama bëggoon déggan si maire boole ma ca yeewuleen ma wax ci sama doléance ban doléance nga am li ma am war a wax bëri na ci tabaski bi càcc yeeg xaj yi ni sa defar nga kër ga lépp baax defar nga say bagage lépp pare na an sa xaalis na indaale sa xaalisu yaay. lépp sama xaalisu cent cinquante mille yi. cent cinquante mille laa def ci. aw ma ma dama ñàkk jot aw ma temps wax sa waxu dof yi. aw ma temps wax ci non noppil noppil da nga bëri wax. lii cent cinquante mille la. Mhm. dama bëgg balaa ngay dem kër ga. Mhm. bay dem seen dëkk. nga dem joxal ma ko Joodo a kan. <laughs> am wuy ma teel teel teel joxal ma ko joodo bay cent cinquante mille da ngay déglu ma wax la da déglu ma la xam nga yow sama rakk nga liggéey ba jàpp sama rakk nga sama xarit nga man ak yow ñooy madame ak biraan ànduñu tàqalikoo woon tànk nag mënuñoo tàqalikoo damaa bëggoon boo demee ca joodo mbay ba jox ko xaalis bii ma la jox muy yóbbante nga jël yóbbante yi ma la jox pour nga yóbbu ko dëkk ba boo jëlee say bagage ba dem dama bëggoon boo tabaskee ba noppi nga jël congé nga noppalu may naa la ñaari weer parce que liggéey boo gis am na noppalu man maa la wax damaa sonn. mais barki Dembo Ndiaye nga feebar. malaise malaise amul malaise bu ndaw moo ma jàppoon te nee naa maa ngi sant yàlla bu baax aw ma benn problème damaa bëggul mu tabaskee ba ca suba sa doodu suba sa day gudd ci guddi gi nga woo sa chauffeur bi wax naa ak moom léegi balaa may ñëw mu ñëw jël si ma ndax damaa bëgg nga invité ma sa spécial tabaski ma sañse hmm. defanteeg yow waxanteeg àdduna léegi dinaa la woo téléphone kon bu ko defee ñu waxtaan ci dégg waaw waaw mais prévoir al noppalu beeg yëpp. noppalu ma noppalu ma booy dem bu congé bi jeexee booy dem Paris yóbbaale ma. Collé waaw man dama sa morom ba sa waxi dof yi nga ma ciy boole. ambiance bi nga nekk. Mm. da koy def ak say nawle ak say ñoom man kilifa laa. Ah, sa mag laa. donc yi bu ci boole dégg nga. jëla enveloppe bi nga yóbbul ma ko. boo noppee dem jël say bagage kër ga. te dem julli ji. sooba yàlla samedi bu sooba yàlla li nga ma gis. waaw te nag sama tur nañ ko bind fii. waaw nuyul ma yuusu dégg ak ñoom njaga ak ñoom buubaat sama fan si daal nuyul ma ñëpp te nag papi nañ ko dàq ah nañ ko dàq ku bonda jël kii waa pap na def yow fi nga nekk bari na coow di ça bien ci loo nekk waa kay xam nga lu ma bëgg yére bi nga waxoon ne danga ma koy indil fu mu nekk ni complet yi nga ma digoon bàyyi ko léegi xam nga li li nga ma ko naroon a joxe pour ma ma ma ma ñaw ñawlu pour tabaski ji léegi bàyyi ko loolu yëpp wàcc na la ndax damaa am sama benn xarit boo xamante ne moo ma indil mbubb mu mel ni jàmm macha allah léegi nag li ma bëgg mooy indil ma xaalis bi rek man boo ñëwee dinaa la expliquer li li ma bëgg a wax ak yow xajul ci téléphone indil xaalis bi rek na xaalis bi ñëw waaw waa àndal ak moom nga ñëw <laughs> waa kañ jërëjëf waa kañ que da nga daw génn dëkk bi sànni corote bi Sénégal pare toog quoi non même pas justement dama demoon justement pour benn tournée et j'ai fait le tour léegi je y a mu def ko moo corote bi justement. ok ok léegi man ñëwoon nag laa si xalaat directement. pour euh, faire la promo au max et je sais que y' a que toi yow laa si gis franchement gisuma keneen quoi. est ce que entre nous. promotion nga may doyee parce que toi je te da nga doy waar. non même pas franchement nam naa la tamit il faut ñu gisee ñu gisee ma expliquer la yenn détails yi tu comprends. non man bëgguma déglu ay euh. détails. est ce nga may doyee est ce que corote nga may doyee. si si si Thiorote avant tout mais il y a plein d'autres mais loolu c'est pas important déjà le point number one c'est Thiorote di ko daggate di ko Thiorote every day je veux qu'on écoute qu'on entende ça partout d'accord partout partout ok léegi moi je vais pas te cacher que actuellement j'ai plein de problèmes là je mhm. euh, suis dans des dans des moments hyper difficiles su ma la ne gise ak yow damay fen d'accord da nga may may temps d'ici deux trois jours je ferai le maximum pour qu'on se euh, voilà quoi tu me diras li nga may doyee ak sa promotion single ok amul problème y a pas de souci de toute façon soo nga wax ma mais là je suis vraiment à dans la promo quoi en plus temps yi laa war a def clip je vais t'expliquer en même temps scénario bi nga wax ma si xalaat t'inquiète en tout cas merci déjà pour euh, le temps que tu me donnes tout ça là. non t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas amul problème je t'appellerai. Vas-y man jaajëf jaajëf merci jaajëf gars. il est très bizarre ce ay <laughs> Pape Cheikh Diallo after lay comprendre si bëggul dara. yaay ba ma la tijjilee ba léegi ko doon waxal. téléphone rek. ah sa nopp yi day. ma téléphone yi comme standard. na waar. maa yey maa yey bañ a téléphone. <laughs> bilaay yaay lii moo tax Assane Ndiaye ni léegi ku ci romb sa géer da lay làqatu ni ma sonnee ci tabaski bi. yow dëkk bee toj nag waaye doo ko ñàkk de xam naa ni moom joxe nga ba dee de. ah. ah? man de fi mu ne bu doon boo joxee benn baaraam dagg wala benn pàtt ci loxo bi dagg kon kuuñ naa fi mu ne nii xam naa ni laa fi ñëwee tey naan la yaay. <laughs> kenn du def lu baax de am lu bon. <laughs> continué yàlla baax na doo ko ñàkk di. yàlla baax na kay li nga joxe ren. Uh-huh. bu déwénee da ngay joxe lu baax na yàlla baax na waaye dëkk bi na. tabaski suba. nit ñi joxe joxe sax yi ñu daan joxe sax amatuñu. li la wër ci kër gi. ah li ma la jox doy na de jëli nga ñëw xale yi. lépp ñëw na. jëli naa sa ndugg mat na. ndugg mi mat na. xar bi baax na. tubarkalla waaw léegi loo wax waxati tubarkalla moom kay fi mu nekk kontaan naa leen rek a des. ah lu des. booy ñëw. Ah. nal bi na mat xam nga nit ñi dañuy ñëw ma leen di jox ndewenal. yéen yow doo doyal li ma la jox gisoo ni mu bëree xanaa. jox naa la njëgu xar jox la njëgu ndugg jox la njëgu ñoom xoto xot xotaan ñoom boisson ak ñoom ñoom dinaa dama lay limal de parce que bu ma la toppee nag yaay du baax du ma kon du ma ma denc de jox la ba jox la njëgu pom jox la njëgu soow nga bëgg ma tegaat ci leneen ndéwénal yi rek joxeel rek jàllu jéeri joxeel rek loolu rek nga xam moom nga daan def dafa sa baaxu baam bàyyil bàyyil grande dame bi ngay jaay yaa ma ko nit ki day def lu mu mën nag man damay ne rek weer dee laay xaar mënuma laa jox li ma la jox ba pare après nga bëgg ko fi ñëw nga jox ko ndéwénal les temps sont ah, dañ naan yaay Pape Cheikh joxewul ndéwénal di la loolu nga bëgg ñu wax ma ko <laughs> ah ko def de jox ma rek yéy yéy bëgg lu rëy xam nga tabaski moom benn yoon la ci at bi te dafa rëy waaw dëgg la moom dëgg la kon kay nañ ko def ba mu baax rek ma su may ñëw ma ma ma jox la jox dara Pape Cheikh mhm. yàlla ndax gis nga ba ma juddoo ba tey teraanga ji ma Pape Cheikh defal nii mm-hmm. kenn mësuma ko defal. bu bu xol. moom bu moom bul jooy bul moom nag. Ah, mm. li nga moom ak li la boole du benn li yaa xam moom. nara ko. dig enveloppe ah, neel Pape Cheikh. Mm-hmm. yàlla laa koy bàyyeel. yàlla bu mu jàq. yàlla bu mu jaaxle. bu dul woon ak moom. Mm-hmm. daanaka du ma rey xarum tabaski oh, maa naroon sama dëkkandoo yi ma nekkal ku ci nekk ma yónni xale yi ñu dagg ndawal jox ma mm-hmm. waaye comme Pape defal na ma lii mm-hmm. yal na ko yàlla doon lu sutura jéng waaye duñ la yow doo daanu rawatina boo amee ñaanu ndey loolu am nga ko ñaanu baay Pape am na ko yow am nga ko nel Pape Cheikh mm-hmm. yaa bul déedéet xam naa mënoo wax dafa fees waaye nag xam nga nii rek yaa moom lépp lu mu def rek yaa ko moom parce que ji nga ko teraa Collé sama xol moo sedd boo bëggee dégg dëgg ndax Pape Cheikh mhm. lii mu ma defal nii musuma am ku ma defal teraanga ji ah te bu ko neexoon mu toog seetaan ma mhm. nit a ngi bokk ak ni toog seetaan ko mhm. rawatina nag moom mi nga xamante ne daf maa bëgg ma bëgg ko mu teral ma nii yal na ko yàlla teral ndax ku gis néew di doole ci jamono yii ñu toll nga dimbali ko bett ko mbettum jàmm mii waaye xam nga ne Pape Cheikh lu mu am mm-hmm. na ko doomu aadama yi lu mu am rek bokk na ko doomu aadama yi dëgg yàlla xaalis baa ngi nii nag fukki junni la yéene na la ko jox la ko fukki junni fukki junni tam xeeb ko loolu nag ba xeeb na ko loolu dafa jàmbat ba son ne ma tee nga maa xar ma dem ci gab bi lijjanti waaye dëkk bi xam nga rek ñamuy séddale moo bari Kole dem na waaw jox naa ko ma xool euh, sànq dama ko jox pour mu dem yóbbul ma mbaaye mm-hmm. nee na mu ngi fay dem jox naa ko moom tamit xaalisam jox naa ko xaalisu yaayam. jox naa ko sama nijaay bi nekk dëkk ba. Ah, nee naa ko mu jàdd fa itam jox ko xaalisam. baax na jox naa ko lépp. na nga vérifier nag woo ndax dem na dafa sab. ah nee na dina dem de. man nag nee naa ko boo demee après tabaski def fa deux semaine bu la neexee. ëpp na di ah, def deux semaines. yaay ndax toggal waaw bëgguma man naa man naa xiif. ay jaral na ma xiif jaral na ma xiif naa xiif nee naa dinaa wax astu mu ñëw fi de. envoyé naa ko message tontuwuma bëggoon naa ko yónnee xaalis faalew ma xaw fan la lijjantee tabaskeem mais demain bu ma ko woowee téléphone bu fi ñëwulee je lu le maximum bu ma koy diri sax dinaa ko diri indi ko fi ci kër dina ñëw dafa am kóllëre yónnee na ma lu bay. dalaa yónnee yaay. yónnee na ma mbubb yónnee ma xaalis. bëgg du bañ bëgg du bañ. mu may bëgg ba tey. waaw astu dina ñëw. mais woo naa ko jëluma. dafa jàpp est-ce que nekkul salon. tey dafa xat naa ko message naa ko tontuwul. dafa xat dina ñëw astu daf maa rus dina ñëw. lim ma yónnee yëpp sañ sa bopp foog mu hmm. gis ko. yónnee na mu lu bari. na sa xel astu moom génneeguma ci sama yaakaar ba tey. man tam génneewuma sama xel ci moom de. waaye nag maa ngi ñëw dem ndax man aw ma toogaa dama war a dem dëkk ba xam nga dama war a dem dëkk ba fa laay tabaskee fa laay tabaskee dama takk sama bagage yi mu woo ma rek ne ma bàyyi ma ne ko kooku ay mbiram dama ci sawar ndax dafa la bëgg te ku la bëgg ma dooleel la yàlla na la yàlla fay yow mi yow mi xaaral ma jéem a wut ñeent fukk yu ma la jox nga paas. waaye ma jox la. déedéet bàyyi dem bàyyi ma dem rek bàyyi rek may demee foofu. waaw naan sax jërëjëf aw ma toogaa damay dem dëkk ba nii damay tabaski ji dëkk ba nga jëm mbaa boo jógee dëkk ba di di jaar. yow bu ma tabaski xam naa ci guddi gi rek a waaye nag guddi gi na nga moy tuddee saay saay si. déedéet chauffeur bi may jël si. nga teel a dem booy ñëw it bul guddee. Mhm. na nga teel a ñëw ndax saay-saay si dañoo bari te nag kolle mhm. paap yaay genn wàllam ah, te yaay ndejooram ah waaw waaw yow xam nga ne Pape kër mënut a neex. te te yow newoo fa. ah loo gis dafa am lu ko war a mhm, xoromal. Mhm, mhm. dafa am ñoo xam ne moo ñooy ñooy xorom ñooy xorom ci cin. nee naa ko maa sa cumukaay waruma toog fenn nga nekk fa ca des. dëgg la dëgg te xam comme li nga wax dëkk bi war a dem sax ko nekk mu boole benn motard bu ma bu ma bu topp ma topp ci moom. nga lu ko ëpp moo gën de jar ko ëpp. Ah? jar nga lu ko ëpp jar nga lu ko ëpp na nga teel a ñëw nag de. ndax Pape moom bu dul yow ñëw di woo ñu làng d'accord yow est-ce dem ca direct euh, tabaski ba sax. loolu la ñu war a waaw dañu war a dem nag dañu war a dem ndax ñu baax ñaa ngi fa. boole koog ñu ñëw kër paap. waaw ku fa ñëw bu ñu fa toogee. Mhm. ku ñëw di laajte paap. ñu ne ko ñooy ay jigéen lu muy wax mu wax koog ñun. Mhm. lu muy defit li ma neex ci yow da nga xam ay dilu business. aywa tam damay dama bëgg sa dawa ci oto yi de <laughs> waaye maa ngi. pomme de terre laa damaa wopp ba wér doom nañ de nañ de ma du ma ko mukk teraanga mënuma ko booleeg yem. ngay a fii tiyaaba ji jërëjëf jërëjëf kon nuyul ma Pape dinaa ko woo léegi sax bu soobee yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf dinañ ko dégg waaw te nuyul ma Pape bool nag dina ko dégg dina ko dégg jërëjëf Mbaye jërëjëf merci beaucoup merci merci la ilaha illallah ba yow ñaar fukki junni ma ko jox ko cinquante mille kii su ma si joxoon ñaar fukki junni ba du dem daala ko ma di crise cinquante mille nga bënn say bëti jooy ay pauvre baaxul ñàkk baaxul oh là là dafa ñàkk jël cinquante mille yooyu bàyyi moo gi man defati sama mënin rek di perek di longaa waaw waaye tiit naa nag mm-hmm. dafa am fit dil bi yépp sañ na ko feeñal waaye yàlla baax na mën na mm-hmm. ko bañ yër xool fi mu dëkk